confiance bu mat sëkk lan moo ko waral. waaw ñëw rek ñun ay xale lañu làmb boo ciy dem xare da ngay ñaan yàlla defal la ndam da nga war a rassurer ses supporters loolu kese la. Gris gi sa sa mbag bi mu ñëwee Gris Bordeaux numéro un lu mu def ci yow. waaw kooku ñooy yenn ñooy fanaan combat bi combat am la du ñu def dara lu dul rek ñaan yàlla le mu nekk fête pour Medina ñu dëjee ko ko parce que combat am la. seen complicité yéen ñaar. waaw deret rek deret rek mu nekk mag bu responsable mag boo xamante ne c'est une fierté pour moi waaw mag bu nekk nit ku nekk yaakaar naa booy wut mag da ngay wut mag bu am jom bu am fulla bu am personnalité te loolu yëpp dafa nekk ci moom mu nekk sama mag ba pare nekk sama fierté. combat bi nekk revanche par procuration ci yow. waaw comme d'habitude ndam rek incha allah moom moom defal na ko mu Moustapha Gueye ñi daanoon Tafa Gueye yëpp bëre giri giri da leen a daan muy bombardier muy kaneen ak kaneen waaw kon tamit bii tamit même chose rek ñu ñëw jëleel ko revanche incha allah. ñu mën a xaaral lan ngay andi xeex wala bëri. non ñun daal attaqué koñe gagné moom mooy choisir. mooy seen slogan. waaw incha allah waaw. looy wax fans yi. waaw di jox ñëpp rendez-vous na Medina yëpp ñëw ñu daje ba waaw ñu ñëw yëngal ñëw fii feete ko fi. jaajëf